daa ah, moom xottu samaan lañ gën a waale ñaari jant lañ jaajëfal duñ fekkandoo ma kenn te mooy taaw sëñ Bakki Boor sëriñ Maga Jor Tine Njaay kooku Bakki Boor amul doom bu ndaw sëñ Tuubaa nag day coobere yàlla day lu kenn xawut kon sëñ Bakki Boor doom yi bu baax wël li ñu yàlla lañ day borom xam-xam lañ moom nag moo ñëwoon ci dëkk bi. fekk si ci nijaayam doomam yii mu fi denc ci njaareem lañu faatoo sëñ Tuubaa yot leen indi leen fii ñu denc leen ci suuf si sëñ leen fi denc lo fukk la fi denc ci taax bi ku sëñ bay jaxate kenn ka mu bel ko fee na mën na boppam sëñ bay jaxate sëñ Tuubaa ko daaroon ci dëkk bi mook Cheikh Ibrahima Faan ba gi muridina xam ne koo tudd Xuru Mbàkke Jaxate te baayam jàngal na sëñ Tuubaa Xalima Jaxate Kala sëñ Mbay li nit ñi bàyyiwul mooy waajuram rek bu xaali xaali daanaka moo rawoon ci réew mi rabot ñi fi raw ci la bokk borom xam-xam la Jaxate Kala xarit mam soxna mbakke wañan mi taw mam ma haram mbakke moo jur wa yaayam mam soxna mbacke moy taw mam ma haram bu jigen mo jur ab sa jaxati ngi jur xali ma jaxati kala alxaali yaayam satub mam haram direct la ab sa jaxati fa la dajeeg seeb jaxate ndax mamam seigne ibrahim fari mbacke moomu ma wax dam seigne bu mbacke ni don way juram seigne bu mbacke ni ko jur ibrahima awaña nga ko juru ci mbàkke bi baye ahmadu joosi terba fari mata ko juru do maam mamam xam moom on dam seigne sëñ fari bu mu demee xomaak ni seigne ba tanon def ko imam ci la bokk kaay mi bañ doon jàngi moko jité bokk dal ko daan ubbi moo koy mooy mohon waxoon mag na leen tànn leen daje tànn imaam ba wax ne doomi daam seen mu jële ñuy tànn ba ne ko na sama kon ñaari maa ngi tudd seen mbay jaarate ak Sëñ Tuubaa daan nit dana àgg foo xam ne kenn du la wax dëgg mooy sëñ day wax ne dëgg wax sëñ laa defal woon bànn yi jàngaloo ko Abdoulaye Touré wala ko di ko déglu moom sëñ bay jaxate sëñ soxna bu lañ ma tuddee nee na ku la koy xam te sëñ soxna bu waxee bakkan sëñ soxna bu lañ ma loolu sëñ Tuubaa la nee na ko ëpp sëñ Mbay Jaxate maqaama yomal xëy amay taxaw rek ba mooy seen ko sëñ sooy boo ko sagal dëkk bii sëñ Tuubaa ne gaar na buñ muur ñaare koy xam borom muur borom wërsëg kon bëgg ñëw xurbaak rek taxul nga ñëw xurbaak soxna Jaara it fii la liggéeyee kii bépp naa Poroxaan da dëkk bu siiw rek ngir mag ma ko sancoon di siñ mbakki bool indi seli boo ko sancoon di mag loola loola war loola waral dëkk ba màggee waaye bu ñuy lim liggéeyu soxna si lim defal yàlla lépp ñu ngi ko defee ci suuf su sedd di xuru Mbàkke la dëggee fi la teelul xarat yi fi la defee def léegi nag jaar boobu du te fii la ko defee ci dëkk bii mu nekk mooy dëkk boo xam ne dëkkum ñaan la ndax maam Abibu Lay nii fi tëdd di caatum soxna jaara Cheikh Abdoulaye Ndeye la lu fi waay ñaan moom te ba Sëñ Tuubaa koo feeñoo ne ko nii nga ma bàyyee ma wéet la fekk soo jiitu woon loolu kon bi dem rek lañ ko fi denc sëñ Maki Maodo mi fi dem Nioro ba nga ci maam euh, euh, Baba Jaxu Ba bàyyi ko fi mu wéet waaye dañ la ñu wett bi ko nag fi mu ne te mooy jaarul soxna si moom la mujj ci doom mooy soxna si bëri ay doom wax ne yaayam la safaanoon yaayam mama stawaalo makki mama stawaalo ñeenti doom la amoon ñett ñu jigéen benn bu góor soxna jaar ñett ñu góor benn bu jigéen yaayam ñett ñu jigéen makki bu soow soxna ku bu soow soxna jaara sëriñ bu soow de loolu soxna stawaalo makki bintu soxna om soxna moom ma ca naa moom it ñett la am yu góor maam Mor Jaar ca la ñibbi bakki xewal Seexul Xadiim bi nu tee dem sawar soxna Fatima maam Xadiim sañ Mbàkke ma woon nag ñi yoroon ñëpp ay bokkam lañ yéen nit ñi bàyyiwul xel ne sëñ Mbàkke moo yorutoon ay wujj ñuy wujj bokkoleron ndax soxna anta njaay mbakki ñu doon aawam seen nyaari baye bokk ben baye mambal aysa ak ibrahima awañan mam haramay sa baye te ibrahima awañan soxna anta njaay mbakki mambal la seen mbakki ma waroon bu dee soxna jaar na jaayama astawaro ak seen mbakki moom sëri seen nyaari baye bokk ben baye ahmadu soxna bu sok mambal la mam haramay jor bu dee a Fati si Diop mbokk ma ab salaaw ba mbakki mi doon ndayam amul soxna bu soo jur bokk mam Balla Baye ma di seen Baye kon sëñ Mbacke bu war ay bokkam la denc woon moo tax mu am boppam xam nga dañu doon ay jàmbur fi ne ay bokkam la dajale woon ci dencoon akub jigéenam ñaari garbaatam akub jigéenam la dencoon ci biir këram. yooyu mbokkam lañ bu dee soxna am sécurité moom nga xam ne mbokkam la dañoo xam ne jarbaatu xaar yi moo jur suñu sax kon ay mbokkam rek la nga jëloon moom seen rakk moom sëñ fii nag na fa rakk yu bari ci dëkk bi te benn rakk wël yu benn amatul ku ne xam ne ne wël ci seen bàkki moom la dëpp sëñ Ba moom des koo jëlale moom lépp fii la ko defee si Basiru nee na lu ñuy defal nit kii la ko def bi muy jóge fii màgg na ndax nañu bi muy jóge fii daanaka mi ngi ci fukki at ak benn ndax xam nga ne moom bi ma may fukki at ak ñeent la soxna jaara wàccub liggéey sëñ Mbàkke moo war moo wàccub liggéey ci fanweeri atam si tool bi ma amee fanweeri at di sasin la sëñ Mbàkke moo dellu ci boromam waaye bi muy tàqale koog soxna si moom fukki at ak ñeent la am tàqale koog sëñ Mbàkke moo war ci fanweeri at moom sax wax dëgg yàlla

la ca sëriñ Fallu waxoon ko na la sëriñ Fallu maa ne woon siyaari nitu dañ ciy jële mucc ci gàcce ak ñàkk te ku siyaari nitu yàlla ñu jëgg la say bakkaar Fallu moo ko ba mu koy wax nitu yàlla la ko doon waxanteel di maam Cheikh Ahmadou Mbay waajuru sëriñ Sam Mbay xam ngeen ne maam Cheikh wax dëgg rek kuñ ko nga war doon borom xam nga ñu waa ñu njëkk ña ku ca doon gaynde gaynde ngay jur ndax dañoo xamoon fuñ doon denc doon doon jur ay gaynde léegi nag koo am kuy babee kuy fecc ak kuy taxawal rek kon maam Cheikh Ahmadou Mbaye du gone te suñ fanoo ko fekk mu góor ne moom ku ne xam na ko sëñ Fallu ku kooku <laughs> yaakaar naa ku ku ku ku mu sa gisit dégg nga ko kon ku bëgg nañ doo tàggoog ñàkk léegi indi addiya Sëñ Fallu jox ak ko waree yi mu ko fa saajo ba pare bàyyi la sa tëri ko jàq woo moom fa jara sa aajo fa jógee bàyyi la sa tëri loolu ko jàq woo moom fa jara sa aajo mu dikkee fa bàyyi la ko ko lii mu wax Sëñ de